jërë ngeen jëf euh, bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili Père Birahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew mbokki internet yi nga xamante ne da ngeen a safoo Wassare Làmb jël ko muy seen site internet numéro un ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax waaye du ma ci wéet benn yoon dama ci ànd ak sama xarit sama papa Père Birahim Ndiaye euh, di ko nuyuwaat bu baax a baax a baax Père maa waa jërëjëf maa ngi a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu maa ngi nuyu bokk bokk internet yi nga xam ne ñu ngi safoo site bi tudd Wassare Lamb mm. eh, di ko safoo di ko seetaan may de ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp mm. eh, di ñaan sama kaddu yàlla na leen fekk ci jàmm yéen ñi nga xam ne yéen abonné ci eh, site bi yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan ci yéen ñu ñaan nag yéen ñëpp ngeen gën a yokk làng gi mu gën a yaatu mm-hmm. waaw nit ñi parce que bu ñu sañoon dem ba ci ay deux millions sax dégg nga parce que bu fekkee li ñu wax tam intéressé na leen mm. parce que njëriñ ci génn waaw yaakaar nañ njëriñ ciy génn mm. eh, ñu ñaan yéen ñëpp ngeen ñëwandoo en masse rek lu ngeen ci gis tamit lu naka su noona la ngeen waxtaan ci ñu rectifier ko may kontaan ci lool ci toog sama doom ji li mm. di sama xarit di sama lépp wax dëgg yàlla di xale bu yaru may nuyu Basiru nga xam ne mooy jiite mbir mi ak Adama ak euh, Ousin ak xale yi nga xam ne ñi nga xam ne comme jotu am yi ak gàkku kàggu kàggu moo ko fàttee def musiba mm. waaw soo mbokkum jaareem la kàggu maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp daal eh, di fas yéene nag waxtaan ak yow ci li arab di wax xalbu salim quoi mm. xol bu mucc ayib laa fas yéene waxtaan ak yéen ci mooy laaj li moo ci xam mm. euh, père euh, dinañ ñëw ci waxtaan bi mais dafa am loo xamante ni dafa dal tiis na bu dal réew mi yëpp képp koo xamante ni mm-hmm. doomu réewu Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. muy génn àdduna Pape Bouba Diop mu nekkoon joueur boo xamante ni macha allah euh, bégal gi mu bégaloon Sénégal ci 2002 contre France rek euh, taxoon na àdduna bi ñëpp jox ko jox ko gët jox ko nopp euh, tey ba yàlla suñu borom dogal mu génn àdduna ñu koy ñaanal rek yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana te xam ne sénégalais yi duñ ko musa a fàtte saa su ne du jug ci suñu xol moom Pape Bouba Diop di ko jaalewaat bu baax a waaw jërëjëf ma waa inna lillahi wa inna ilayhi mm-hmm. uh, muy tiis woo dal ci kaw Sénégal waaye nag nañ ko muñe borom bi rek xam ne yàlla noonu la bindee asa sa suuf mm-hmm. noonu la bind addinaam bi dem ak maa ngi ñëw rek a fi am mm-hmm. muy tiis woo xam ne man bi ma ko déggee wax dëgg yàlla eh, def naa ci samay ñaan jàngal naa ko sootum yaasin joon ko mulki ñaanal ko nga xam ne jàgg sàkku njégalu borom bi ci moom ak ñoom fekk ak ko fa fekk ñëpp parce Euh, takkusaan yi nga xam ne ajjuma jooju mm-hmm. bitam boobu ñu dugal contre euh, France mm-hmm. keroog bégal na monde bi kuy Sénégal rek bég nga keroog kon yàlla na yàlla def muy teeroo ko àjjana fi daws mm-hmm. lim fi bàyyi njabooti yàlla def ci barke te am naa ci yaakaar parce que ñi ko yéene jàmm bari na nit ku baax xale bu yaru bu teey man na mosuñu jàkkaarloo gis ne waaye ni kanam day wax kanam day wax léeg nga gis nii de dafa soxortu fekk soxorul kanam gees benn noon rek léeg-léeg nga gis koo xam nit ku baax a ngi di fekk ne ku doy waar la te fekk kanam gaay wax rek mm. te kanamam dafa joxe kanam gu baax yàlla na ko yàlla yërëm xare ko na mm. ma koy jaale de sportif bépp nag mm. bàyyiwuma kenn góor mag jigéen ndaw ñëpp ñoom lañ koy jaale yàlla na dajeeg yërmande borom bi waaw euh, jërëjëf ñu koy ñaanal rek moom Pape Bouba Diop ni mu yëkkatee woon keroog drapeau Sénégal ca kaw. Mm-hmm. yàlla ko suñu borom teeru ci àjjana yi firdawsi. moom mm-hmm. bég bi nga xamante ni bégaloon na ko réew mi yëpp. Mm-hmm. yàlla teeru ko ca kaw a kaw a kaw. ci bàcc Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Père dañuy ñëw nag ndax waxtaan bi mënuñu bu ñuy waxtaan rek dañuy dugg ci làmb. mu am loo xamante ni ci taarix euh, mm. jiitu na ma fi mm. euh, ma bëggoon koo xam parce que keroog bi ñu dem ci jàkkaarloo Modou Lo mm. ak euh, ki nga xamante ne moom la doon def ak presse bi mm-hmm. am ku ma ci dégg mu ne Père Bécaye est-ce que Modou fi mu toll nii roi des arènes bi mu doon jotul ñu xoolaat roi des arènes ak yu mel noonu Père li mu ko tontu mooy non fi mu toll ni Modou moo nekk roi des arènes mënuma cee wax dara muy mel ni luy xajamal mm-hmm. roi beeg yu mel noonu. Hmm. Euh, ma bëggoon ñëw tuuti rek parce que dañ ne roi des arènes ci taarix dañ ko defoon compétition. Hmm. compétition boobu dañ fa dajaloon ay ndaanaan ñoo hmm. xamante ne ñoom ñëpp ay mbër yu lañ. Euh, ñuy concours ñu def compétition. compétition boobu Manga 2 moo ko jël. jël boobu mu ko jël moo waroon CNG de lutte bi. donc nommé li nga xamante ne mooy Manga 2 roi des arènes. Euh, compétition boobu laa bëgg nga ñëwal ma ci ñaata mbër ñoo ñu woon ak fan la woon ak nu mu demee. waaw jërëjëf ji li laaj nga lu ma fekke loo xam ne lii ñooñu fi génération boobu ñenn ñi maa ngi ñoo ma bërindoo ñenn ñi moom dañ maa fekk ci làmb maa nga dëgg ci làmb la ma fekk ah. waaw mën la jëkk a bëreel ci ci ci mbër mu am tur hmm. man la jëkk a bëreel deuxième combat keroog Fally moo bëri grand combat bi ak ku ñuy wax Baara Ndiaye ñi may wax kay boo demoon toog toog boo toog boo doon sëñ Modou Niang hmm. ci kanamam la mu ngi toog sëñ Modou ñaa deewul feexul ba léegi mu ngi fi fekk na làmb ji ak ñeneen ak ñeneen sax fekk nañ làmb ñu bari boo leen laajoon ñoo ngi toog ko jëkk a daan fii mhm. këram yoon defe tam ci Ndakaaru fii ci stade Iba Mar Diop man la bëre ci combat bu desee ko maa ko daan waaw man mii maa ko daan kay première comme nee na fekk na bëri na sax fekk daan na na fi am na ñeneen am na ñeneen ñu fi daanoon quoi ci deuxième combat mais bi mu dajee man nag ñu boole ñu muy combat choc bu métti parce que man booba Fass ak séeréer si ñooy rival. parce que maa ngi topp ci ginnaaw Mbaye Guèye moom mu topp ci ginnaaw Robert. Mm. ñoo ñu boole ñu nag benn deuxième combat keroog Fally Coly moo bëri grand combat bi ak ku ñëw Baara Ndiaye. Mm-hmm. avant dernier combat maa ko bëri maa moom keroog maa ko daan. Mm-hmm. jël boobu benn werante caxabal laa ko daanee. Mm-hmm. yaa ngi dégg li ma la li may wax kay nit ñaa ngi toog télé baa ngi nii rajo baa ngi ñu ko fekkee woon deewu ji bi wax jeex ñëwee. dëgg la

photo baa ngeeg man. léegi ñu ñëw waaw ñu ñëw. waaye ci tournoi bi. Hmm. Euh, man fekkewu ma ko amul. tournoi boobu nee naa leen roi des arènes Manga 2 roi des arènes Alioune Sarr la Alioune Sarr comme mooy kilifa gi bu ko tuddee roi des arènes. dégg hmm. affaire bi mu ngi jóge ci làmmiñu ma euh, kii euh, Mansour Mbaye. waaw parce que booba Manga mu ngi fël si moo faram di fël si. ñu bë boole leen benn combat. biñ leen boone combat kooku combat boobu Mor Faram day topp al manga muy arrière di ko topp muy arrière di ko topp muy arrière ba ca barrière yi ñu dellu si waat leen ñu def ko topp ko di ko topp ko combat bu dafa mujj match nil li may wax kay nit ñi deewu ñu seetaan ñu ko seetaan koy bu ngeen laajee jaar ci loolu ba ñu leen remencé aatee nag manga daan ko da ko gëdd ba ci da ko topp da ko manga da ko gëdd mu daw sa sol mu kii faram di ko song si mu sol ko fàq ko mu sukk mu tàllal woote waat waaye xam euh, Mor Faram moom wax ci làmmiñam mu nga ci àllaaxira yàlla na ko yàlla leer mu ne ma am na lu mu làkk si ko am na mbiru euh, arbitre séeréer boobu am na lu mu làkk maa nga maa nga dem tàllal loxoom dem waaye moom xam nga moom du kaas ka dem man boobu laa gis waaye tournoi kay bu ñu ko déggee dañuy teg roi des arènes kay kon dañ naan diw ak diw ak diw ak diw ca la bokkoon ku ñu daan nga toog ba ci final ba ma defoon loolu mooy roi des arènes mais loolu amu ci. mooy li mu daan tubaabu joor loolu. loolu passé na bu yàgg. loolu passé woon na bu yàgg ba mu daan tubaabu jor bi muy daan tubaabu jor dégg nga fekk na boobu loolu passé na moom moo faram boobu loolu boobu moo farama passé na après le bëri tubaabu jor daan tubaabu jor après tubaabu jor daan ko dégg li ma la avant loolu dégg nga Alioune boo ci jógee Alioune ko fi daan grand combat maa ngi toog mu bëri ma yorofal mu doon bot mu tëgg ma yorofal moo doon bott ko mu dóor wet gi ñu woo may rafet rafet taal loo xam dem ñibbi keroog papa yi nga ngañ jaañ mii arbitre di di di nekk internet kii di yor euh, rajo i rajo moo arbitré combat muy grand dul jaañ keroog moo arbitré combat bi fii ci Bamar Diop maa ngi toog maa nga bi mu jógee a takk suuf maa ngi toog dégg nga li ma la wax loolu lépp li ma la ma fekk la roi des arènes googu ñu wax te ko amul Mansour Mbaye moo ne woon ñaar ñii de ku ci daan ñaari massa doon la ñoo ëppoon booba ci làmb ji mm. ñu ne ñaar ñii ku ci daan yaa war a waaye du woon trophée boo xam ne bi dañoo jël coupe bi teg ko daal ne coupe ku daan yaay roi des arènes amul ku ko fekke na ma wax wala voilà xanaa roi des arènes doo daan benn mbër rek na may roi des arènes daan benn mbër daan moon fa dam rek na may roi des arènes kan la daan après nag maa nga bi ma daanee bi ñu suñu quatrième combat bi ma gañee ñaari yoon la ñu match nul ma daan ko benn mu daan suñu quatrième combat ci la commencé daan gars yi match nul feeg Double Less mm-hmm. dégg nga match nul keroog Double Less la match nul fële ci Demba Diop keroog ñun papa Robert moo gaañu ma ànd ak Mbaye Gueye ak tuwaawu jor ñu ànd jaale jëm ñu si wàll keroog dafa mat si nii lees dégg nga ma la ci la ñu bëriwaat Iba Mar Diop ci la combat ba am coow ñu wax la ci biir man loolu ci wax du ma ci waxante parce que loolu wóoru ma yaa ngi dégg du ma ci wax lu ma wóorul yaa ngi dégg mais dama leen amul. moom moom moom euh, Père Manga ak euh, Père Doubalé seen waaw. waaw nga ne la nekk ci biir doo ko wax la nekkoon ci biir kay déggoon naa ñu ne ñoom ñaar loolu man comme fekkee mu fa ñu koy tegee du ma ci wax. Mm-hmm. parce que bu ma waxee naa wax lu ma xamul. Mm-hmm. parce que bu ñu koy natt di ko teg noonu man loolu fekkee ma ko. Mm-hmm. waaye daal si am na combat am na am na wax am na ca. lañ ca wax nag loolu ñoom ñoo ko waxal seen bopp man loolu xaw ma ca dara. parce que nit ki bu seede day seede lu mu fekkee. man li ma fekkee nag man maa ko fekkee waaye fu ñu tegee trophée bii ne trophée bii ku daan yaay roi des arènes man maa la wax lii billaahi wallaahi tallaahi ñett ngi ñi gën a for laa lay wax waxuma ko pour iñaan waxuma ko pour soxor waxuma pour iñaane kenn parce que roi des arènes nga anamu bu amoon sax jeex na ñun ñëpp màggat nañu léegi ñun ñëpp kenn ku nekk làmb eh, eh, eh, yomal xiyaam rek waaye dootoo ko sëgg ci làmb di ko bëri kon loo ci iñaan man du ci iñaane nit du ma ci soxor nit waaye lii moo am li am laay wax ay roi des arènes amul fi woon kañ nga xam la noonu bi journaux euh, roi des arènes nag empereur nag yooyu lañ fi commencé di wax moo yooyu mu fi doon a commencé génn waaye wax naa man dix am daanu ma fan dix ans da dix ans yi bu nee dix ans daanu ma da ngeen naan ko dix ans yi ban at ak ban at la dafa waroon ne at sàngam laa commencé bëre laa toog ba at sàngam kenn daanu ma ah, ah voilà très bien sax kooku bu ñu nee roi des arènes mhm. mën naa ko gëm. waaw parce que moom dafa tombeek jamono yooyu ñuy wax roi des arènes mhm. mais boobu bële dañuy ñaar Mansour Mbaye rek yàlla barkeel kàddoom mu ne ñii ñaar da ku fi daan yaa war doon roi des arènes parce que ñoom ñaar boobu temps ñu ëpp ci làmb ji waaye boobu bëreegul ak Ali boobu bëreegul ak euh, Duba euh, kii euh, tubaabu Joor mhm. dégg nga li ma la boobu faram bi la jëkk bëreel kon mu doon loo xamante ni war nañ ko xoolaat. waaw parce ci bari dama daan dégg. ci fan yi ñu naan. Mm-hmm. dëgg la euh, roi des arènes bi biñ koy nommé diw tournoi lañ tëggoon CNG bi ñoo ko tëggoon diw ak diw ñoo ko dindi gis nga suma papa Père Birahim Ndiaye dàq na lool. waaw ndax wax na ni moo jiitu per Père Manga ci làmb. fi la ma fekk ci baree baree bare ci làmb fii la ko fekk. waaw kon ñu xoolaat bu baax a baax a baax taxawaay yeeg wax yu mel noonu. ñu léegi foofu li ma lay wax damaa bëgg képp ku contesté na damay wax ne ma diw ak diw ak diw ak diw ñoo bokkoon ci tournoi ba tournoi kay xanaa buñ ko dañ naan diw ak diw ak diw ak ñi nombre ñii ñoo bokkoon ci tournoi bi benn tournoi amoon na fi mais du woon trois rois des arènes boobu Modou Pouye la woon ndam si yàlla si ak Ibou Senghor dégg ak Papa Diop bu Pikine ak Boy bàmbara tournoi boobu amoon na fi fekke naa ko yaa ngi dégg la ñu dem ba ci biir Pape Diop ñu ne Pape Diop ak kii ah, Pape Diop ak Pape Diop daan Pape Diop daan Ibou Senghor dégg nga euh, Boy Bambara daan daan kii <coughs> waaw Boy Bambara am na ku ko ne daan nee na Modou Pouy moo dóor booy Bambara mu daan mhm. dam si mhm. ci Iba Mar Diop mhm. léegi nag kii nu ah, euh, kii euh, Ibou Senghor Pape Diop daan ko Pape Diop bu Pikine daan ko ñu bool leen ñoom ñaar stade Demba Diop bañ leen boolee combat ba am coow ñu ne dañoo commis dañoo commis leen ñu aj leen dañ leen aj la ñu boole te ñiy seetaan ñëpp dañu xam li ma wax ñu fekkee lépp loolu yàlla Amadou Kati Diop ñu fekk ñëpp ne leen ci la ñu boole ñu comme dañoo commis ñu leen ñu daal di boole Boy Bambara ak Ibou Senghor Boy Bambara daan Ibou Senghor jël kubba loolu maa ngi toog looloo ma sàmm waaye teg ci kub nii ñu ne diw ak diwati comme ni ma la limee la ñeent ñi amul ñeneen teg ko weddi na na ñëw ci internet bi ne ma détournement ba diw mii la ak diw mii ak diw mii ak diw mii kii moo daan diw dajeeg diw kii daan diw dajeeg diw kii daan dajeeg ba ñuy finaal moo faram kan la daan dem final waaw mu màng kan la daan dem final xanaa kay tournoi day am finaal ak demi final ak quart de final ak yooyu waaye yooyu ay wax la ay wax la yoo xam ne yi booba temps mànga mbër gi ñëw na champion la wax dëgg yàlla bu dëgg dee dëgg rek am na fi année yoo xam ne yii neef na fi deux ans wala trois ans yoo xam ne ñii da leen fiir ñu daanu ñii def leen dóor ñu daanu ñi mu falax la ñu daanu leelu am na yaa ngi dégg li ma la booba doole ji ñëw na ñu bëri yëpp parce que mënu leen ko doole dégg li ma la lii fi amoon waaye ana fi toog dix ans yoo xam ne yi dañ ne dix ans yi daanu ko damaa bëgg génn ma at bii la ak bii la commencé dañ naan mille neuf nangam la commencé ba ni nangam daanuwul ñu commencé la génn at yi nag at bu nekk ñi ko daanu ko at bu nekk dégg nga dix ans yoo daanu yombul comme nii toog te parce que booba combat yi nii ñoom kii di bëree yombewul noonu bareewul noonu noonu parce que boobu yéen ñii dañuy toog ay un an du ñu bëre wala préparer combat un an deux ans nga def benn combat ngay bëre wala at bu ne benn combat ngay bëre kooku mën nga cee toog trente vingt ans trente ans doo daanu waaye ñun suñu ñun suñu làmb amul woon loolu. at bi da ngeen ci daan bëre ñaata combat. ñetti combat wala ñeenti combat ça dépend. waaw looloo amoon. Mm. waaye lii ñu wax ne li raadu des années foofu amul. maa ko dindi maa ko dindi moom seet ku ko am na ma wax tournoi na ma limal trois bi ne ma diw ak diw ak diw diw diw la woon te yéen li ngeen doon dooni xale kay rek wax dëgg yàlla xanaa war ngeen a mën ne bokk xanaa tournoi kay mbooloo lay doon ah, waaye benn équipe ak benn équipe rek mën nañoo football ku daan yaay champion du monde ba ah claf ba le père Gaston tëggoon ah gis nga ko sama xel dem na ci claf euh, ba ah. ah, la limal de damay ku ci nekk ka ca bokk classe ba 2008 ba euh, Zos moo ci bokkoon euh, Balla Diouf euh, Issa Pouye Boy Sey Bathie Seras Yékini Junior ñooñu noonu Tapha Tine ñooñu ñoo bokkoon ci ci ci tournoi boobu gis ngeen poule A la woon ak poule B. ba ci yeneen ñoom Balla mais ñuy jaajëfaatal père bu baax a baax dinañ ñëw ci roi des arènes actuel fi mu toll nii. waaw ki nga xamante moom la ñuy wax roi des arènes fi mu ko jëlee. waaw ak jéego bi mu defaat ba roi des bi soppeeku. Mhm. yooyu yëpp dina ci waxtaanaat. dëgg la mbokk ñëwoon ngir leeral rek. fi mhm. roi des arènes commencé. Mhm. dinañ ñëw fi mu mujjee incha allah. ci benn euh, bu soobee. dëgg la ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax encore di ñaanal père. Euh, tey mooy le premier décembre mooy sa jour anniversaire. waaw euh, yàlla na nga dund ay at yu bare bare mm-hmm. bare bare père yàlla na nga dund cent ans sans ordonnance ni consultation parce que sa dund am na njariñ ci réew mm-hmm. Mm-hmm. ci barki Seydina Mohamed ci barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yàlla na nga dund dund ay ati ati ati at ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax per père dina jëfalaat bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf Diéry maa ngi jaar saan ñaan ci ñi seetaan ñëpp. di sàkku ci yéen ñaan ci nga xam ne ñu ngi safoo site bi tudd wasaare eh, nga xam ne abon nañ ci ñëw di seetaan maa ngi sàkku yéen ñëpp ku ci nekk rek yàlla na yàlla defal ma ñaan ñu ñaanalante yàlla nañ fi yàgg a toog di wax lu jariñ doomu aadama yi waaw parce que toog fi di wax lu amul njariñ taxuñu fee toog dañoo yaakaar ne rek buñ fi toogee di wax rek xëy na lu ñu ab njariñ ak lu tegu ci dëgg moo ñu fi tax a toog waaw loolu moo ñu fi toog kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan ci yàlla it te yàlla bu mu suñu mujj toog yàlla suñu mu toog di kontaane ci ñëpp nag bi wax ne anniversaire yi ñëpp ñaanal ma rek maa ngi ñaan yàlla yàlla nangu ñaan yi ñu yàggat dund lool te ànd ak wér ak wérle waaw ma di ko ñaanal waa ahlu saas nag mm-hmm. saas di commencé ci Moustapha Gueye mi président bi eh, di ci teg Pape Konaté laay jox nuyoo bi nag comme moom loo ko jox mu jotale ko moom laa koy jox mu wesaareel ma ko ci ñëpp nag waaw di nuyu Biram Doy di nuyu soxnaam di Fallou ndeysaan foofu yu ne tey comme ni may am tamit mm. ma sante ko yàlla mooy samay doom mokkal nañu alxuraan fi ne tey jii ñoom dañuy seddoo kaamil bi comme dañoo jàngi tey jii bu ngoonee ñu def xatmu bi dajee nag ñu def xatmu bi ñëpp def ay bernde kër ga toog waxtaan loolu sant yaa naa ko yàlla su ma demee ba tey jii doon ba am âge bi am samay doom yu góor yu jigéen ñooy daje wàcce kaamil dégg nga jàng xatmu bi dañ daan toog bu dee jour fête comme tey jour jàngi la ñenn ñi liggéey nañ dañuy seddoo kaamil bi bu sañ ko seddoo ba pare nag léegi bu ngoon jotee nag buñ julee timi ba pare nag daje def xatma bi quoi. ma yàlla yàlla barkeel seen xoraan barkeel daara yëpp nag. laa hmm. ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne boo jaar fafa laa mëne damaa mën ci bii boor mën ca bee boor. kon ci yi boor ci yëley boor bàyyi fàtt njaay ni roowu mag ñoom cuuna rëy ma juut waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg